Heavyweight.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 diina ji weesu xale bi daa xaar ba mariage bay rajaxoo nit ñay dem ak a dikk mu jaar ci suuf dem gendarmerie bu wokkaam làqu ji fa ëskay kalaame gendarme yi ne leen ay way juróom ñoo ko bëggoon maye ab waay bu mu bëggul cay mim réew dëgg way jur yi nag kenn du xëcoo ak ñoom way tamit ñoom dañoo war a xam ni sëy neex na lool waaye nag sëy ak ko bëgg waaye Sénégal ngay gis ab góor di labat jigéen mu ne la bëgguma la waaja jaar ci suuf jënd way jur yi way jur yi ki ndappe seen doom bëgg a sukkandiku ci njureel ne dañ koy may waaji par force bu ko defee nag xale bi dugg ci sëy bi bëggul waa ji ñu ko may di yolleeku ci suuf di dem seeti waaja mu bëgg mujjee am jëkkër am far daanu ci kambu infidélité moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca mbuur doy na waar mbir mi mu ngi xewee ca commune bu njagañaaw ci village buñ naan Godagen ñaari ndaw a fa doon foowee bëree waaye li ci mujjee ama doy waar ndax kenn kay yanu morom bi ba ci kaw dóor mu daanu ci suuf daanu bu metti nag bassin bi jëlee ci ab damm-damm oh. bi ñu ko yena yóbbu hôpital def na fa une semaine waaye xale bi dafa mujj ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki def yo fi nag yoon teg na ko loxo ndogal daal kenn xamul fu muy jóge ma ne li nag moom message bu rëy la pour suñu lamb ji moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Tuuba doy ab waay daal bu ñu ne ab responsable Benno Bokk Yaakaar la di ab chauffeur ci ab notable religieux moo fa jàpp rakku jabaram bu am 14 ans dëkkee ko pëttalaw te nee nañu waa ji cinquante cinq la am ndekete woo saa waay lu toll ci atu yàlla ma nga ca woon dëkkee koo def gone gi yàktaankat la boole koog nag di ko menacé nan ko soo ko waxee kenn du ko gëm teyit sax dara duma ci fekk ay waay samba ba noppi ne ko boo ko siiwalee yow donga ci jëlee gàccey tas sa sëyu ya bon li firndeel ne xale bi dañoo yegg ci kaam mooy bi ñu ko defalee ay examen gynécologie musique résultat yi li mu wane mooy xale bi yàqu na yaxeet moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Fatick doy na waar lu toll ci 456 kilos yamba lañu fa teg loxo ñi ko def nag mooy waa douane ci diiru 24 heures ci ñaari opération ci département bu Foundiougne opération bu njëkk bi brigade commerciale des douanes bu Karang moo ko def mardi 25 ci boori 9 ci forêt bu Fatala nekk ca ginnaaw localité bu Sàmme ñu jàpp fa ay kilo yamba yu takku beneen opération bi brigade maritime des douanes bu Toubacouta moo ko ci guddi talaata vingt cinq août boori vingt heures demi la teg loxo ay saret yu ñu fekkee ak juróom-benni colis yu def yamba toll ci deux cent dix kilos aw law ñu ko tegee loxo ci village bu Nioro Alassane Tall ci yoon bi lëkkale Saloum Diané ak Toubacouta waaw góore waay ndax réew mi nag fi mu ne yamba jang koy bëgg ak yeneen xeeti drogue yi posete insécurité bi am yépp ak yenn xeeti ray yeeg accident yi boo xoolee gis ci loxol drogue te léegi yàmbaa ji xale yi niñ ci jotee ni mu yombee jéggi na dayo génnal ci réew mi rek daanaka koñ boo dem daa fa fekk ay gone yu toog seen liggéey du lenn lu dul muqi suba muqi ngoon ma ne yàmbaa moo leen gënal ganaar gu ñu njoñ moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw la wax la ca Louga doy na waar ab waay bu ñu naan enn Jóob moo fa doon bëgganteeg benn xale bu jigéen xale bu jigéen boobu nag bag la doon def waa di enn Jóob sakku woon ci ndaw si pour mu doon soxnaam ndaw si lankal ko ko ba tëdd ci naaj bi ci la waa ji lalee ab plan ut yambaam ju takku jox ko xaritam bi di wuyoo ci turu em gay mu yóbbu ko ca fast food bi ndaw si di liggéeye comme caissière wup pup pup pup ndax ndaw si da doon jàng ba noppi di liggéey gannaaw bi ñu defee seen coup ba teg fa yamba bi ba noppi dañoo woo police oh. mbir mi nag mu ngi xewee ca quartier bu ñu naan sànc ba waaye nag li ci mujj mooy enquête ba mujj daane enn Jóob mi na son plan bi ma ne yëf yi ci kawam la mujj këpp dee ñaw ndax xarit bi di em gay ma mu joxoon yàmbaa ji ngir mu déposé ko ci fast food bi ndaw si di liggéeyee moo mujj claté plan bi ba yoon mujj leen teg loxo ñaw ma ne mooy li wolof njaay waxoon rek yéene néeg la te borooma ciy fanaan te woykat ba waxoon na ko nit dina la bëgg ba sànq sànq man ma tekki na nit dina bëgg ba sànq boppam waaye nag li war mooy xale yi jigéen ñi boo leen bëggul góor ngir yàlla bàyyi leen waaye bëggoo góor ba noppi topp ci poosam di yuri rek mu xëy na dama lay takk nga lànk ba tëdd ci naaj bi waaye violence bi góor ñi di dund mitti na mu doon leen seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz